bismillahi arrahmaani irrahim bokk ñi ñëwaat ak yéen ci jotaay yi tafsir alquran al yi ñuy ànd ak ci biir koor gi tey ñu war a tafsir suratu takwir te mooy saar bi yàlla tàmbalee isa shamsu kuwirat suratu takwir nag saar la wu tiitle saar la wu raglu saar la woo xam ne bokk na ci saar yi wàcce màkka waa yàlla wax ci ay mbir yu yéeme ci tàmbale bi lépp ngir bëgg nit ñi waaroo ci nit ñi delloo si seen xel ba wéetal yàlla te gëm bis penc balaa réccoo weesu mu tàmbalee saar we ci isa shamsu kuwirat yéen mboolem nit ñi maa ngi leen xibaar ngeen fàttaliku bis boo xam ne bu ñëwee jant bi dañ koy taxañ dañ koy taxañ ba mu lëndëm kuruus ñuul kukk ñu dindi ko ci palaasam fi mu ne nga xam ne dootu amuk leer wa idan nujumun kadarat fàttaliku leen itam bis ba nga xam ne su ñëwee biddiw yi dafa tasaaroo di wadd nga xam ne moom tam ni koy séene muy leere nii day lëndëm moom itam ñul kukk wa idal jibaalu suyirat fàttaliku leen itam bis ba nga xam ne bu ñëwee doj yi dañ koy buddi maasale ko maase la ko ba àll bi lépp maase nekk ak ndànn fay-fay gu tàlli doo seen wenn daju jóg lépp yàlla maase la na ko jële ko ci palaasam laay ba waxoon naa nuroog eh, biñ jàngoon ci suratu naba te mooy suyiratil jibaalu fakaanat saraba doj yi kon yàlla da koy buddi yowmal xiyaam maase la ko ndax am mbir mu màgg màgg màgg mu muy waajal mu ne wa idal inchaaru oppilat fàttaliku leen itam bis ba nga xamee ne giléem gu ëmb sax seeni boroom duñ ko soxla duñ ko am soxla al inchaar moom mooy giléem gu ëmb ba toll ci e, fukkeelu weeram ba keroog nag muy am doom xam ngeen giléem gu ëmb alal ju bare bare la ndax gileem rek daa seer bu amee nag boole ci moom day gën a seer yàlla bëgg a wax ne nag am na bis bu bu ñëw ci seen kanam boo xam ne bu ñëwee gileem sax dana ëmb te kenn du ci am soxla kenn du ko faale maanaam daal li mu bëgg wax moom mooy kenn du soxla alal ndax ku nekk am nga mbir mu la doy sëkk am na xew-xew bu xew boo xam ne kenn ku ne noona siiwa mucc ngay xalaat te xamu ko fay mujj am na it ñu ne as al anchar mooy niir yi nga xam ne ñooy andi taw bi lu ci mën a am rek bis la bu tiit la boo xam ne bu jotee yàlla nee na yii yëpp day xew li tax mu tudd foofu giléem ndax daa bokkoon ci li gën a cher li gën a foor ci naar yi naar yi seen alal ji gën a foor moo doon ay giléem ndax dafa cheroon lool loolu moo tax sax atte yu bari ci lislaam ngeen dégg yàlla di ko Euh, di digal ñu joxe gileem lu mel ne euh, ku rey nit mu ne da joxe nangam gileem ku euh, dem màkka itam def luñ la tere ginnaaw ba nga armalee la gën mooy gileem bu dee ci tabaski sax yenn fuqahaay dañuy wax ne ñoom gileem moo gën ndax moo ëpp ndawal loolu mooy yeneen giir yi bu dee ngiru imaam Maalik la moom day la jiital waaye loolu lépp rek lislaam da ko daan def ngir xam ne naar yi dañoo fonk gileem te dem gileem dafa cheroon ci ñoom te sax ba léegi dafa cher kon wa itali incharo wa itali incharo optilat fàttali ko ne bis ba xamee ne gileem ak leen koy bëgg-bëgg lépp leen koy bàyyi noonu mu ëmbu waaye du wuñ ci am soxla du wuñ ci am soxla wa idal wuxuushu xoshirat fàttaliku leen tam bis ba bu ñëwee wuxuush yi te mooy rabi àll yi ndegment yi muy gaynde yeeg segg yeeg bukki yi xoshirat des leen di dajale ci benn palaas am na it ñu ne xoshirat mooy des leen dekkal ngir euh, ragli la seen diggante ñoom itam ndax am na xadis boo xam ne muslim ak tirmisi yi génne na ko jële abu hurayra ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ku nekk képp koo ameel aq yowmal xiyaam danañ jël ci yow xàqam jox ko daal ne sax xar mi nga xam ne dafa amoon béjjén mbëkk moroomu xaram mi amuti béjjén sax ba yowmal qiyaam yàlla na leen dekkal saxal ka amuloon ni ay béjjén mu mbëkk ki ko mbëkkoon fii ci àdduna xam ngeen ne loolu fa ak maandu mën a yem loolu nag euh, nit ñi kon war nañ ci bàyyi xel ci jëflante ci diggante xam ne xàq dafa sew te képp koo amee xàq ak lum tuut tuut doo dugg àjjana mukk te joxoo ko xàqam wa isal wuxuushu xushirat kon mooy bis bu ñu demee ba dekkal rabi àll yooyu wala buñ ñu demee ba dajale leen ngir régler seen diggante wa isal bihaaru sujjirat maa ngi giñ tam ci bis ba nga xamee ne géej yi dañuy fees bay wallangaan géej yépp xëttaloo di walwali am na it ñu ne sujjirat mooy buñ ko taalee safara ba géej yépp di baax ndaxu tàggoor wa idan nufus zuwijat fàttaliku leen tam bis ba nga xamee ne bu ñëwee bakkan bu nekk def na ko lëkk lëkkaleeg lam daan jëf bakkan bu nekk def na ko lëkkaleeg lum daan jëf bakkan bu nekk itam def na ko lëkkaleeg aw yàpp yaramam yàlla dekkal ñëpp delloo ruu ci jëmm yi ñëpp dekk wa idal mawudatu suilat fàttaliku leen itam bis ba nga xam ne bu ñëwee gone jigéen yi daan am ba noppi di ko suul ñoom arab yi yàlla dina leen laaj bi ay zambin xutulaat lan moo tax ñu ray leen ci arab yi dañoo amoon aaday bu amee doom ci jigéen dañ ko daan rey ndax ragal gàcca dañuy gas ba mu xóol rek ñu suul ko yàlla nag ñëw di leen yedd eh, wax na itam yowmal xiyaam dana laaj doon yow ñu daan suul lu tax ñu suul leen kon yee ci boppam lay laaj loolu la ci yàlla jublu moom mooy toroxal leen ak yedd ne wan leen ne leen ñi ngi daan suul sax ci boppam li ñuy nekk nekk ay xam ne ne li ngeen seen jëf ji jaaduwut seen jëf ji ñaaw na kon yéen ñi nga xam ne ay mag ngeen am xel xam ngeen ne eh, li ngeen def jaaduwut kon ñoom la ñuy laaj ñoom gone yi la ñuy laaj ba noppi ngir toroxal ñee eh, comme ni nga xamee rek noonu la yàlla laajee Seydina Isa alayhi salaam yawmal qiyaam naan ko anta qulta linnaasi attaxizuuni wa ummi ilaahin min duunillah talaaj gi mu laaj Isa gën a xam ne moom Isa waxul loolu aw nitam waaye ngir xal nit ña ak wan leen dineen kat ki ngeen doon topp ak di jàpp ne moo ngeen e, jaamu moom déglu leen su ma ko laajee li muy tontu wa su mawudatu su'ilat suul googu ñu suul seen doomi jigéen yi ak kuñ wax na sax na am na doom ju jigéen nga am lu naqare lool moom la alxuraan nett ci beneen béréb naan wa ida bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim a min alqawmi min suu ma bushira bi ayumsikuhu ala huun am yadsuhu fi turaab ala saa ma yaxkumuun yàlla nee na kuñ mas a déggale ak doom jigéen sa kanam day ñëgg nga am loo naqare lool ngir jàq di làqatu saw nit ba noppi di wax ci sa xel naan ndax dama koy téye bàyyi ko mu dund ma am gàcce wala boog dama koy rey yàlla na nag ala saa ama yaxkumuun kon jëf ju ñaaw la xam ne alxuraan ñaawlu na ko euh, te ñi daan def bu yowmal xiyaamee des na leen laaj lañ daan jëf lu tax ñu def ko waaye ta suxufu nushirat fàttaliku leen tam bis ba nga xam ne bu ñëwee seen téere jëf yi nekk ci seen mbagg yi yëpp dañ koy tasaane ngeen di ko gis nit ku nekk am na ay téere yu nekk ci ay loosam ak ay mbagam malaaka yi di bind ay jëfam yëpp lépp lum jëf ci wéet mbaa ci wéetlu ko malaaka yi ñu ngi koy bind yàlla wax na ko ci alquran nee na wa kulla insaanin alzamnahu taa'irahu fi unuqi wa nuxriju lahu yowma alqiyamati kitaaban yalqaahu manshura yowma alqiyam doomu aadama bu nekk am nga téere bu nekk sa baat boo xam ne yàlla dina ko génnee jox la ko ne la nag iqra kitaabaka jàngal sa téere bi ndax moom doy na la sëkk tey seere yàlla ne nag fàttaliku leen bis boobee nga xam ne bu ñëwee téere jëf yooyu ngeen daan jëf lépp dañ koy tasaa jox leen ngeen di ko jàng te du ngeen ci mën a miim dara wa ida sama o kushitat fàttaliku leen tam bis ba nga xam ne bu ñëwee asamaan si dañ koy xotti dañ koy budd dañ koy fàq mu daanu wa idal jahimu suirat fàttaliku leen tam bis ba nga xam ne bu ñëwee sawaraw jahim dañ koy xam muy tàkk di bérëx bérëxi wa idal jannatu fat fàttaliku leen bis ba nga xam ne bu ñëwee ajjana dañ koy jegeel ñi gëm dañ koy jegeel ñi ragal yàlla uzlifat mi ngi jóge ci zulfa bii tekk ak jege yàlla mi ngi wax ci alxuraan ci beneen béréb naan uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id yawmal qiyaam dañuy ñoddi àjjana ba mu jege ñi ragal yàlla na la texe yàlla nee na yooyu nga xam ne maa ngi ciy giñ ak a waat li may waat ak di ko giñ moom mooy su su yooyu ñëwee alimat nafsu ma ahdarat bakkan bu nekk dana xam lam daan jëf dana ko gis janook moom te du ca mën a weddi dara ndax téeréem yépp téere yi lam daan jëf lépp mi ngi ñu ci kanamam téeréem yi itam yépp di ko di ko seere di wax kon du mën a weddi dara Eh, kon ku nekk la nga jëfoon ci àdduna ba yow na xiyaamee da nga fekk mu teew yàlla wax na ko ci an ci yeneen i béréb lu mel ne fa mu waxee yow ma ta tajidu kullu nafsin ma amilat min xayri muxdara wa ma amilat min suin tawaddu law ana baynaha wa baynahu amalan baida ku nekk la nga jëfoon moo xam lu baax la moo xam lu bon da nga fekk ñu tegal la ko ci sa kanam nga teew ak moom ci sa kanamu boroom ngir yàlla rek la ko ngir fay la eh, la nga yellool yàlla ne nag faa fii day tàmbali jeneen wax laa gi itam day feddli ay wax rek day feddli giñ kon li mu bëgg a wax mooy uqsimu uqsimu mooy maa ngi giñ bil xunnas al xunnas biddiw la ci yàlla jublu euh, biddiw yi la ci yàlla jublu euh, moom de moom yi dañ koy woy alxunnas ndax li muy nëbbu ak a feeñ moom moo tax li muy nëbboo ko feeñ nga xam day xaw niroog daal kéwal Euh, wala aw nag wu ne ci àll bi nga xam ne léeg-léeg bu xëy dem ci àll ba fori fori bu guddee mu ñëw mu mu mu mu mu jof si daal di tër si eh, nga xam day ah, day feeñee ko nëbbu day feeñee nëbbu moo tax ñu ko tuddee alxunnas biddiw yi lañ ci jublu foofu kon maa ngi giñ ci alxunnas te mooy biddiw yooyu aljawaarel kunnas aljawaar mooy biddiw yooyu nga xam dafay daw ba noppi nekk kunnas kunnas Euh, mooy loo xam ne ba tey euh, dafay nëbboo ko feeñ day nëbbu bët yi moom moom moom biddiw yi day feeñ day feeñ guddi yi suba tegee mu nëbb yàlla nee kon maa ngi waat ci biddiw nga xam ne dafay nëbboo ko feeñ ak daw ci kaw asamaan si wal layli iza asasa maa ngi waat tam ci guddi bu dëgmalee wala bu demee asas baatu arab la boo xam ne moom ñaari sens yëpp lay tekk day tekki ñëw di tekki dem kon maa ngi wàtti guddi yi bu fekkee ñëw na wala boog maa ngi wàtti guddi yi bu fekkee dem na li gën a euh, placé fii nag moom mooy guddi yi bu fekkee ñëw na ndax loolu moom mooy tax mu mën a méngoog aaya bi ci topp te mooy wax subax isa tanaffas kon maa ngi wàtti guddi yi bu fekkee dina ñëw na ba lëndëm karuus wa subaxi di ci suba yi isa tanaffas bu fekkente ne moom itam bët set na ba mu leer nañ mi bi nga xamee ne yàlla waat na ci yooyu ba noppi nag wax itam lay xew yowmal qiyaam tam bakkan bu nekk loo jëfoon da nga ko fekk mu teew ci sa kanama boroom yàlla dellu waatat ci biddiw yi waat tam ci guddi waat ci suba ndax yooyu dafa yéeme lool te yàlla rek moom moo ko man mu ne innahoo moom alxu jooju alquran jii nga xam ne maa ngi koy wax muy laaya yii la qawlu rasulin karim waxi ndaw la ju tedd wax la joo xam ne ndaw lu tedd tedd lu yàlla yónni moom moo ko jële ca yàlla andi ko ci yonente bi kooku jibril la ci yàlla jublu ndax jibril moo daan jële yàlla alquran di ko indi bi sallallahu alayhi wa sallam kon alquran waxe yàlla la waaye jibril nett bu mu ko nettali jële ko ci yàlla andi ko moo tax yàlla tuddoo ko fii ne waxe jibril la ndaw loo xam ne nag zi quwwatin ku bari kàttan la ci jottali li ko yàlla ne kon yàlla fii mi ngi wax ay melo jibril ku bari kattan la ku bari doole la lool zi quwatin inda zil arshi bana eh, bari na doole lool te yàlla ma nga xam ne mooy borom aras yàlla moo ko oh, may doole jooju ba noppi itam nag makiin mooy borom daraja ju yëkkatu yëkkatu ko la ku ñu màggal la ku ñu wormaal la ba tey inda zil arshi ca yàlla ma nga xam ne mooy borom aras kon ma nga wax inda zil arshi makiin mooy moom borom wàccuwaay wu rëy rëy la borom wàccuwaay bu màgg a màgg la ci yàlla mi nga xam ne moom mooy borom aras Euh, mutain ku ñuy topp la moom jibril moom ndax moroomi malaakaam yi dañ koy topp moo leen di jiite nan yàlla neen ngeen def nangam yàlla neen ngeen bàyyi nangam samma amin ba tey euh, ku wóor la koo xam ne lépp lu ko yàlla jottali loo da koy jottali te ci wàññi dara waaye itam du yokk darra du yokk dara euh, wala bu neexee nga ne mutain waaye mu taa mooy moroomi malaakaam bi dañ koy topp dañ koy topp ci lépp lu yàlla digal euh, tey itam ku wóor la wama saaxibukum bi majnuun maa ngi leen waatal ne seen waa ji di yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkul ab dof de nekkul majnuun li tax mu ne saaxibukum di leen bëgg wan ne kii dub jàmbur ci yéen daleen leen jege ba mel ne ki ngeen àndal tax xam ngeen ne dub dof yéen a ko gën a xam ndax jaxasoo ngeen ak jaxasoo ngeen ak moom kon waa Màkka waxal foofu wa masaabiqu bi majnuun wa laqad ra'aahu bil ufuqil mubiin te moom yonent bi kat gis na jibril ca ufuq al mubiin ufuq mubiin mooy ndànd fay-fay gu yaatu goo xam ne amul lenn lu lay baare mbaa luy lëndëm mu ne moom yonent sam gis na jibril te ko yàlla bind dëgg-dëgg ca xaaru xiraa eh, yonent sam sax moo sàkkoon ci jibril mu wan ko melew ko yàlla bind dëgg-dëgg ba jibril daal koy wan melew ko yàlla binde yàlla nag bëgg wax yéefar ne leen Muhammad alxuraan ji mu jële ci yàlla géntu ko te itam du waxe dof waaye ma ngi ko jële ci jibril te jël gis na jibril gis bu leer naññ boo xam ne ma ngi ko gis ci al ufuqil mubin ci ndànn fay fay gu leer ga nañ nañ naññ wa ma huwa alal xaybi bi danin te moom yonente bii kat nayut ci li ko yàlla ni lu ko yàlla wax da koy jottili danin mooy nay moom xayb bi ko yi ko yàlla yónni muy kumpa yi ak lay xew ëllëg ak xew bis moom du ci nay da koy jottili wa ma huwa bi qawli sheytaani rajim te alquran jii kat nekkul waxi sheytaani rajim ginnaaw lii lépp nag ma wax ci ay kiimaan fa ayna tazhabuun ana fu ngeen jëmati ana lu ngeen di wuteeti feneen ana wan lay ngeen mën a andeeti fan ngeen mën a jëm ngir andi leneen lu gën a leer lii lu gën a wér lii fa ayna tazhabuun in huwa illa dikru lil alamin alquran ji ak waar la ak fàttali la ñeel mboolem mbindeef yi liman shaa minkum an yastaqim képp ko nama ma jub ci yéen nag alxuraan daal day fàttali di waar képp ku nama ma jub ci yéen wa ma tashaauna illa an yashaa allahu rabbul alamin waaye nag du leen soob mukk lu dul mu soob yàlla mooy eh, du ngeen mën a gëm du ngeen mën a dugg ci lislaam gëm bis penc gëm dekki lu dul nag ne yàlla la neex daa bëgg wax daal lépp la xew yàlla la neex laay bi ñu doon nag laay bi ñu jàngoon ci sootul mursalaati ci Eh, wama tashauna illa an yasha allahu innahu kana aliman hakima eh, kon wama tashauna illa an yasha allahu eh, ak njub nag munta am lu dul ne yàlla la neex yàlla moom nga xam ne moom mooy rabbul alamin borom bindeef fi kon lii mooy sourate takwir yi foofu la saar wi jeexe muy saar wu yéeme saar woo xam yàlla xuppi na ci waar na ci tudd ay kiimaan yu baree bari giñ ci itam ci ay mbir yu màgg yoo xam ne yow nga xiyaam lay am lépp ngir bëgg ñu bàyyi ko xel waajal ko ba bu ñu fa demee mën a mucc